3S Pro. aca mi ngi noonu Modou Anta combat spécial de la soirée mbokk yi tey le 23 octobre fii si arène nationale Modou Anta diggante Ambroise la écrit tefes ak Sane Jaxaay Waalo ñaari xale yaa ngi si géew bi Modou Anta. doxalal damaa xiif ba grand combat bi. da xiif kon bàyyi ma doxal Modou Sane Jaxaay moo ñu wan ginnaaw mbokk yi jiital pied gauche Ambroise jiital pied droite wan ñu kanam ñaari xale yaa ngi noonu si géew bi round d'observation. dara amagul am roi sigi xool ko léew sanjaxaay ni tek jàkkaarloog moom sanjaxaay waalo Ambroise tefes gi sanjaxaay ngi doxee wet Ambroise ngi direegu topp si ginnaaw topp si kanamam dellu si nañ dagg nañ lewtoo bi ñoom ñaar gante Ambroise ak Sandiaxaay Mor Anta Sandiaxaay waalo la dëkk sama mbokku waalo waalo la waaye tamit mi ngi jàkkaarloo xale bu mën a bëre xale bu nekk si làmb xale bu bokk si làmb di Ambroise ñu ko gën nga gis si làmb moom tamit tey mu war a ñëw war a wane waat boppam waaye sa Sandiaxaay duñ ko ko may looloo jar a ñaari xale yi ba léegi. ñoo nga sa Ambroise Mep Sa Ndiakhate door na ko li mu def léegi ba wor na bu la sa na laa taru lépp looy def na wóor waaye Ambroise lépp looy def na wóor xeex ñoom ñaar dañuy xeex Ambroise Sa Ndiakhate Sa Ndiakhate dafa bëgg a dem wala Ambroise du ko dem ñooy xeex ñoom ñaar jël na ko jël na ko jël na na lay lay la Sandiakhaaye Ambroise ñaari xale yi bëri nañu ba génn saako yi Modou Anta lii mooy combat. lii moo neex. wa ngi nii waaye Ambroise day jël avertissement. da koy jël waaw. ko mais mooy yoon. ko waaye loolu moo doon yoon. Sandiakhaaye moo ñu woon ginnaaw Ambroise woon ñu kanam mbokk yi. gi ak écurie Waalo. Sandiakhaaye Waalo Ambroise Tefes gi. Leewtoo daggaat taxawaat mbokk yi sànjaxaay ñu woon ginnaaw takk dagg bu ruus bi am roosoo ñu kanam ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu si géew bi sànjaxaay li moo am léegi si booru saako yi su ko amoon si diggu géew bi làmb ci daan daanaka war naa mën a jeex ñamante na ñoom ñaar ku nekk ñëw tee boppam diggante sànjaxaay ak Ambroise damay wet ñoom ñaar waaye nuyu nañ la yow abo sañ-sañ la PDG ñoo ngi lay nuyu di la jaar di nuyu waa France waa Belgique waa Amérique Afrique du Sud sama xarit ba foofu ñaari yaar borom Afrique du Sud doomu Réfal la moom ñaari yaar Ambroise jokkaas na sanjaxaay ni tekk di ko déglu jàppante baaraam Toumane ñoo ngi lay nuyu Yakhtal Do waaye ñu ngi nuyu suñu papa Mouhamed Ali Ndiaye ae Sandiakhai door na ko waaye coup bi dalul dara amagul 3 minutes de combat Ambroise dagg na Ambroise Sandiaxaay waalo tefes gi ba léegi Ambroise Sandiaxaay blasement de bras ñaari xale yéen si géew bi Modou Sandiaxaay Ambroise jokkaas de gauche waaye Sa Ndiakhaye da gis mbokk yi waaye bi bi grand combat diggante Niang bu Ndaw la ak Armé bu ñaari espoir ñaari xale yu lamb bàyyi xel waaye ñaari xale yi nga xamante ni foo leen gis si mbooloo doo jaawale ana mbër bi da nga naan mbër bi ngi nii ñoom ñaar li ñu toll allah Ambroise pied droit Sa Ndiakhaye gauche bëre leen cinq minutes Sandiakhai cokkaas na gauche temps ba jeex na waaw waaw acca arbitre bi woowaat na ñoom ñaar ginnaaw ñu bëree cinq minutes de combat diggante Sandiakhai Walo Ambroise Lebou gi wala Ambroise Tefes gi mbokk yi Sandiakhai ñu woon ginnaaw jëlal pied gauche Ambroise woon ñu kanam mbokk yi jiital pied droit léewtoo bi taxawaat ñaari xale yaa ngi demee wet oh, waaw une observation songa amagul door amagul jël la amagul mbokk yi dara amagul ba léegi ñaari xale yaa ngi si géew Ambroise Sandiaxaay léewtoo leewtoo ba dig na daggal leewtoo taxawaat Sa Ndiakhate na ko dugg si kàddu gi door ko eh Ambroise fayu na Sa Ndiakhate jël na ko jël na ko jël na ko rëpp ñoom ñaar lay la la Sa Ndiakhate Ambroise ngi door Ambroise ba kaw du am Sa Ndiakhate Ambroise na ko bëtt na ko wër na ko yéen a ko ba si suuf lay la la yéen a ko ba si suuf. yanu na ko ba sa kaw dóor suuf xoolal ma amouras li muy indi Mor Anta xoolal ma amouras li muy indi yanu na ko ba sa kaw dolli ko dóor Anta da ko si bëre da ko nax si biir bëre bi nax na ko si biir bëre bi fi ma seen ba tàkk na fi ma seen ba tàkk na xoolal ma waa amouras fi ma seen ba tàkk na Mor Anta amouras eh nax na ko xoolal ma Sa Ndiakhate ndeysaan xoolal ma waa fi ma seen ya gars Anta batu na ko wër na ko yanu ko ba si kaw door suuf laay léeg-léeg laa yanu na ko ba si kaw door suuf yanu na ko ba si kaw door suuf xoolal ma ambulance yu muy indi Mor Anta xoolal ma ambulance yu muy indi yanu na ko ba si kaw dolli ko door Anta da nax si bëre. bëre bu rëy da koo nax si biir bëre bi bu rëy. nax na ko si biir bëre bi bu rëy. fi ma seen ba tàkk na daan bu rëy. fi ma seen ba tàkk na xoolal ma waa ambulance fi ma seen ba tàkk na Anta ambulance eh nax na xoolal ma Sane Ndiakhaye ndeysaan xoolal ma waa fi ma seen yaa gars yi yëngu nañu Modou Anta. 3